billahi min alsheytaani rajim bismillahi rahmani rahim laa xawla wala xuwata illa aliyul azim asalaamu aleykum waa Ngent extension asalaamu aleykum waa Almadi Thiès asalaamualeykum almadi Almadies Thiès asalaamualeykum Madiagne ak sa équipe maa ngi nuyu kenn ku nekk ci turam ak ci santam di leen baalu àq te di leen baal àq di ñaan yàlla yal yàlla boole jéggal di xamal ne. Omar man waa almadi sax la mën a tudd nag waaw almadi daal eh, bindal leen ci fiche yi almadi Thiès ndax da dox doxinu almadi wax waxinu almadi mais li ci gën a impressionnant nag mooy di jëf jëfinu waa almadi mooy loo leen engagé dem ba ci biir te bu ñu ñëwee fekk ci méthode de travail boo xam ne day jaaxal ñëpp kon nag loolu ñu ngi koy saluer équipe bi ñu àndal yëpp ñu ngi rafetlu loolu di jiital sunu nuyoo nag sunu coordonnateur de la zone nord muy seen responsable bi nga xam ne mooy Omar Seck mi taxaw di la grand syndicaliste le grand défenseur des droits de l'homme ki nga xam ne bëggul dara ci injustice kon tey bu ñëwee taxaw fii nekk seen responsable dama ciy rafetlu loolu dama ciy kontaan ñu ngi nuyu ndey Sow Ndiaye bi nga xam ne yéen aussi jigéen ñi moom mooy seen responsable ndax wàllu zone nord bi yépp ku fi jigéen ndey Sow mii ngay àndal di liggéey ci biir mouvement solidarité citoyenne defar sa gox ñi ngi nuyu nuyu bu spécial ndax loo gis mbëggeel da ci am solo te mbëggeel gi waa kër Charles bëggee Charles ki koy firndeel mooy kiy taxaw tey jii di Maurice Moriñan ndax équipe bi nag daa am nu muy fonctionner daa am ay xaritu Charles am ay xaritu madame Loum waaye Mori moom moom mooy xaritu Charles du yendal du fanaanal du tànqamlu moo sol lakkos bii muy ms bi taxaw waaye xaritu tamit madame Loum moo ma jege nii teel ma samay micro ñuy wax muy Iba Gueye chargé de l'organisation et de la mobilisation dans la zone nord ñu ngi nuyu aussi Penda Ba moom moo ci conseiller am ci liggéey bi ci wàll boobu yor aussi organisation ak mobilisation mais dañu ànd ak ay responsables yoo xam ne de grande taille muy Awa Guèye muy Sali Ndoye Awa Guèye boot mbootaayam démb lañ ko monteel cellule mu boot téeméeri jigéen ñu montal ko ñaari cellule li mu wax ci produit yi muy jaay loolu mooy sunu objectif jàngal nit ki lu muy liggéey te ñu ngi ciy ñëwaat ki nga xam ne aussi mooy Awa la même chose ñu monteel ko démb moom it sellulam muy cent femmes muy ñaari cellule ñoo ànd ak ñun ci délégation bi waaye dañ ne lu yënguloo gis am na lu ko yëngal te lu ko yëngal nag moo ëpp doole xam nga ni jeeg ji ku leen xool xam ne dañoo régler kon ku régler rek moo lay mën a jiite kon jóob jóob xam nga ni yow mii ku la xool xam ne nit ki na mu mel noonu rek la ay nitam mën a mel moo tax sa mbootaay mënuñoo jaaxal liggéey ak yow mënuñoo jaaxal ndax ña nga boot ñi dund ak yow ci loolu yéen a bokk li ngeen gëm bokk noo leen koy defee kon nag jóoba juba ngay sama doomu baay musuma oowee madame lum doomu baay rek la may oowee kon nag doomu baay maa ngi lay sant di la gërëm ci sa kanamu mbooloo mi di la wax ne bu ñu takk woon benn takk nañu juróom ndax ay femmes de classe ay jeunes de classe ay femmes véridiques des jeunes véridiques ay femmes responsables des jeunes responsables ñoom la amal affaire tey fii. waaye dafa am loo xam ne tey faaw ñu waxtaanee ko parce que dañoo ñëw nag di def ak yéen liggéey bu am solo liggéey bi mooy lan faske ne montal leen ay cellules cellules yi nag li tax mu neex mooy Babacar Gueye mbaay mi nga xam ne mooy le président des jeunes ñëw tey jii ànd ak ñun war a monter ay cellules. ñëw tey jigéen ñi tey daf ma wàññi ndax dama daan ñëw chaque jour battre ko ci terrain bi waaye tey Babacar moom a baat ndax ay jeunes almadi dañoo ñëw teg six groupement ne tey dañoo fas yéene def tey six cellules moom lañu ñu engagé woo ci biir MSC kon nag six cellules yooyu tey xale yi monté fekk ci seen cellule yaay yi muy sept cellules ñu war ko monte tey fii ci biir Almadies Thiès di ngent extension loolu nag c'est un discours à tenir et à retenir ndax dañu bëgg ay jeunes yu engagé te jeunes yooyu tey ñoo wane seen bopp ci seen engagement pas plus tard que sunu dernière rencontre bi ñu fi ñëwoon jeunes yi ñoo organiser woon invité seeni yaay tey bu nu ñëwoon fekk cellule seen yaay yi ëpp xale yi dañuy xam ne seen yaay yi ñoo ko defoon rek mu booboo seen doom liñ naan commencé dóor ay marto ñoom it commencé di dóor pour élection yi waaye xam nañ ne xale ya organisé woon xale yooyu ñoo déterminé wu parce que ne jël la dernière décision en mai te seen décision mooy lan génne Cees ci sonn génne ko ci lëndëm génne ko ci ñàkk ndox génne ko ci ñàkk assainissement teg ko ci lu wér mooy ànd ak ñoom ba li ñuy oowoo di ko mbubawoo muy Almadies mu bañ a nekk rêve mais mu nekk réalité ndax it Almadies Dakar nag am na loolu yëpp nag lamp yaa ngay tàkk lépp ngay animé ndox maa nga fa courant baa nga fa manqué wu ñu dara xale yaa ngi jàngi seen école yi am seen ay bis de transfert ak yëpp kon nag boo leen tëkkaale seen bopp ak Almadies boobu kon maanaam seen ambition moom ngeen wax. Mm. mais nag oser rêver am na ñu ko fii wax fu mu nekk nii am na ñu ko fii liggéey mu seen slogan kon nag ñu nit osons rêver dañuy daal di rêver rêver bi mooy lan amul loo xam ne c'est impossible dans la vie ñit ku am fulla ak fayda waroo nangu impossible bokk ci sa vocabulaire lan mooy li possible mooy jël li ngeen war a def ndax it nag fo monte ay cellules ñu compter ci trois cent cinquante personnes ñu ne tey jii personne yooyu ñu boole koog suñu slogan un militant cinq votants waaye nag SG multiplier ma cinq par trois cent cinquante kon loolu bu ñu ko génnee tey jii ci almadi bii war ngeen mën a gagné seen bureau de vote te bu boobaa booleen leen gagné seen bureau de vote foofu la toog wax ak décerner ak jël décision fa la neexee ndax it balaa ngay kaas nag say droit dafa sa devoir. kon mënu leen di sas président ay wax te fekk li leen war ak moom defu leen ko du question chantage de mais yàlla ko wax ci alxuraan boo ma nekkalee ma nekkal la ñun lu ñuy nekkal ci yàlla kii am lépp mën lépp kon luñ koy nekkal mais c'est une manière de nous éduquer et de nous montrer la bonne voie et comment vivre sur la terre kon nag société bi noonu la ñu war a fonctionner mooy que bu ñu àndee dañu war a xam lan mooy réalité bi kon nag réalité bi mooy suñ leen liggéeyalee dafa war a am suivi suivi nag la ñu war a def tey ci liggéey bi ndax it lan mooy suivi bi mënuñoo d'accord indil leen ngeen ñëw ne kaay leen ñu liggéey ñu àndandoo di liggéey ngeen ñëw ñu ne da ngeen bëgg financement ñu def ko Ndey sew ñëw rey boppam ci yéen dugg ci école yi defar ndax la mu leen di jàngal nag ak produit bu mu mënti doon Charles Émile Abdou Ciss mais tey moo koy jënd ci xaalisam jox ko ko pour mu jàngal leen ngeen doog a mokkal ku nekk xam na ni ba ci sa doom bi gën a ndaw ba ci xale yi tey di seen doom yor ay bourse yi ñu yor seeni loxo ba nuy jàng école ku ne jënd na kaye jënd na bic fay école fay transfert mbaa chauffeur bu yóbbu sa doom muy dem di ñëw Charles nag muy jàngal ay ñitam dalay fayal école ba fayal la oto bi lay indi jëndal la matériel ba ngay utiliser pour mën koo jàngee kon kooku bu lay waxee bëgg ngeen ngeen réussir war ngeen ko gëm su ko waxul war ngeen koo gëm kon nag du ndey sow day taxaw rek ne dama leen di jàngal ngeen ñëw toog ci mbedd mi di jàng am na ay conditions yu muy am am na ay mesures d'accompagnement yu muy àndal mais nag suivi bi ngeen ci bëgg ndax it dañuy wax ne tepp-tepp moo gën yuréet ndax bu doon bañ fa ñëwee keroog la ñu ñëw defante ak yéen dem suñu yoon kon di ngeen am dese seen gàcce naan nii la mel di fu ñu wax jaar pare nañ fa waaye suñu ñëw yi ñuy ñëw di leen seet si ngeen ñuy oo téléphone duñu jot doom yi ñëw di ànd ak ñun ñuy wër loolu dafay neex ci ñoom te loolu defe naa mooy suivi bi nga xam ne moo fi ëpp importance parce que ñun dañuy dund loo xam ne man dama naan suñu groupe mooy sunu synthèse ñu sunu groupe mooy synthèse bi ndax lu tax mooy synthèse bi lépp lu ñu war a joxe comme exemple sunu biir lañ koy commencer exemple bi ci jiitu mooy que tey jii Sénégal ak enseignant ku ne dégg na ko li ñu xeex fii ci enseignement fii liñ ko grève ba dem na daaw sa bañ naan xaw ma daaw jéeg dañuy def année blanche ba di ko menacer ngir lan ñàkk fay rappel acte yu dugguñu ñu yi manqué na tardé na. coow li ne cour Sénégal mais loolu àndul ak concentration ak gouvernement pour dem ci élection waaye président nag est le plus renseigné au monde Sénégal gi le président est le mieux renseigné xam na Charles Émile Ciss mooy kat ak lu muy liggéey ci biir Sénégal mu ne ko doo ñett fa mu doon liggéeyee lépp ci biir solde nag ne ko dama état bii ma nekk yaa ma doy ci fii société bii tey muy tey ji solde wàcceel tegal ma fa ndax li sama bopp bi dis na te bëgg naa Sénégal yi comprendre sama message message bi mooy lii ma sumb commencé ko heure bii tey ñu toog di wax ak yéen président Macky Sall ma ngay inaugurer TER bi tey ndax lan mooy TER bi train la boo xam ne tey buy daw ci biir Sénégal ak liy embouteillage ci biir Sénégal ak lii yëg wàcc ci biir Sénégal ñu war a xëy huit heures wala liggéey ji li ci retard nga ñu di ko cumuler soo ko compter bu nekk non combien d'heures dans le mois dans l'année jusqu'à un mandat de cinq ans loolu xoolal ñaata milliards lañ la ngay perte mais nag c'est un président visionnaire c'est un président visionnaire xel mi mooy ëlbatiku ndax nag agent may na ko ko tolloogul ci naax ak fàtte ak jaxase loolu tax mu mën a am vision boobu nag di utiliser nag capacité de jeunesse am bi mu am di ko dundee di wan ne lii mooy ëllëgu Sénégal bokk dans la cour des grands ndax it dans la cour des grands nag ngay dem Europe fekk fa terre fekk fa tey jii ay bateau taxi fekk fa ay bus ak grand vitesse di fa fekk tey jii loo xam ne oto yii di daw ci bi diggu tali bi wàññi essence bi def lépp loolu tey ci Europe nga ko fekk ak i Amérique kon nag bu fa tukki jee ba pare war na jël la mu tukki ji tey ànd ko ci biir réewam. kon nag buy buy buy buy def loolu bu ëllëgee ka daan tardé embouteillage yi bëgg ñoo rey ak fume pollution ba nekk fa ministre de l'environnement nekk rek di ut ay médicaments di jox nit ñi kon tey jii bu ko mënee calculer utal ñu teer boo xam ne la employé war a daw mu war a jël ay presque cent vingt cinq mille wala cent mille personnes di ko naviguer par jour te kenn du tardé loolu un président visionnaire moo ko mën et en ce même moment ñu nekk fii en ce même moment ma nga foofu di liggéey loolu. kon nag ka mu dénk tey liggéey boobu ni mu gisee Charles jàpp ko liggéey boobu mu ne kay Charles ne li may njëkk a def mooy ñaar ñoo ma jaaxal Sénégal syndicaliste enseignant ñu nekk fekk suñuy frère enseignant muy Babacar Bert Diop mii nga xam ne nekk suñu wet xam na li may wax xam na na rappel yaa ngi dugg xam na na acte yaa ngi jàll xam na na salaire ñu ngi tardé kon nag kooku boo leen ko amee ku mel ni président Macky sàll am boobu gis-gis ci moom fan la dëkk ñu ne Thiès dama ni ma njaay ña ko wax léegi góor boo ko sagalee mu toog ànd ak yow soo ko tërëree rendi ko su paree fipp daal di daw ndax yaa ko toroxal kon nag bu fekkee ne dem nañu ba xool ne li président Macky sàll defal seen seen doom nekk na dëgg ci yéen yéen a koy prouver ndax Macky de prouver na lamu leen defal kenn du ko lijjanti ndax dëgg la wala du déet balaa nga koy xam nga dem solde fekk ko fa mu toog di nga xam ne kii déposé na fi ñit kon yéen itam lu ñuy xaar ci yéen mooy honnêteté boobu président def ko envers votre fils na ngeen ko ko delloo mooy que bu leen duggee ci mbañ gàcce bi bu leen tricher comme keneen ndax président tricher wul bu leen toog ne yéen da ngeen di tricher ñit dafay oser waaye mënumaa d'accord nga ne diw moo dee ci sama xew moo dee ci sama xel mii mais bu ci dee lu mu la defal tega sa baaraam ni lii la fi def. man bañuma ngeen faral kenn mais tegal sa baaraam ca la mu def ndax ñun nag waa APR am nañu fitu teg suñu baaraam li fi président def boo leen ko werantee dem leen péage baa ngi nii autoroute à péage baa ngi nii euh, Ila Touba bi dem leen ngeen xoolal seen bopp Promoville baa ngi nii cees di taxawaalu loolu du lu ñuy lijjanti du ñuy naatable dama ne bourse familiale yaa ngi circulé biir cees gars yi di ko fayeeku di faj seen i soxla te xëyu ñu gontuñu nag mais yërmandeem ak xam Sénégal la muy dund moo tax mu nangu ko di ko def mi baa ngi nii xale yi am zéro ba cinq dañuy fajota du ñu fay dara ñi amee tuberculose maladie infectieuse yi dañuy dem faju ak zéro franc kon nag boobu président ak leneen ak leneen mais nag pour toujours rek écouter ñu joxe quelques exemples li ma cité cité leen ko ñi nekk ci opposition bi li ma cité ci sama waay nañu taxaw cité ko ci seen waay ñoo xam kan moo mën kon wax ji nekkul ci loolu ñun influencé wu ñu kenn mais dañoo bëgg ay nit yu conscient ndax yàlla ci boppam da ne borom xel yi laay waxal waxul ak dof yi waxul ak keneen kon nag borom xel yooyu toujours dama ne yàlla daf ñuy wan suñu yoon pour ñu xam fu ñu teg suñu tànk kon tànk boobu tey mooy tey jii ku ci nekkoon dans l'opposition amal ngor gu day ne surtout bu ko bind ci fiche bi féetal fi nga féetal mu nekk dëgg ci yow ñun utu maas ñun dañuy soxla qualité conviction la ñuy ànd ak yow bëgguñu ko ñuy tromper ndax sunu Charles mii nag bëggul defet xajul ci gàcce bëgguñu ko tegal ay cellules yoo xam ne dañ ciy bind mille et une personnes dem jox ko ko muy wadd di dal naan président j'ai beaucoup travaillé résultat yi jot du fi gis dara gis nañ fi ma carte ma caution ba muy wër di dëkk bi di signaloo ñi ñi ma carte ma caution gisoon nañ ko fi fan la mujjee kon nag ñun bëgguñu yooyu façon engagement bëgguñu ku ñu nax li ñu bëgg mooy ku sincère li ngay def gëmuloo ko bàyyil ndax ñu am dix xam ne on a dix éléments sincères moo ñu gënal du am cent di ci naagu fekk yoruñu dara ndax au moins avec nos dix éléments on aura la capacité de travailler avec ces ñu indi ñu yeneen dix sama baay da daan wax ne am fukki dërëm am fukki nit moo ko gën ndax boo amee fukki nit ku nekk may la dërëm dinga am fukki dërëm teg ci fukki nit kon boo amee fukki dërëm kese amuloo dara kon nag man am fukki nit te nit ñooñu di ma lijjantil ñeneen moom a gënal am téeméeri nit te kenn du ma foteel bu ëllëgee comme bugg leen nag ku leen nax ba moom ngeen di ndamoo ñii naa dañ ñoo yàgg nax ba tax ngeen fippu kon nag bu nu ñëwee aussi bu ñu kenn nax ndax nag c'est vice versa ah nax bi am na ci militant yi am na ci aussi ci ñi nga xam ne mooy ñiy def seen i élection kon nag des deux na ku nekk téye ci ficelle bi na ku nekk téye téye gor téye gor bi mooy nañu àndandoo li ñuy def mu nekk dëgg ci ñun ne serait que sunu doom yii mbaa sunu rakk yii wala sunu jarbaat yii am seen détermination bu toll nii taxaw mën a génn six cellules ci seen biir gox ñooñu taxaw nañ pour ànd ak président Macky sàll kon nag vous serez pas dessus vous ne serez pas dessus ndax président Macky sàll il est ambitieux Charles Émile Ciss il est ambitieux te ñaar ñooñu nag dañuy ay gor te lu ñu wax dinañ ko def kon nag li ma leen di ñaan mooy présidente yaak sa mbooloo ñi ci nekk nekk ci beneen parti waxtaanal ak ñoom suñu paree rallier ñëw dinaa leen defal seen ralliement ñu waxtaan ci condition yi rafet liggéey bi dama bëgg ñu commencé ko ndax ñun du élection kese la ñuy wax ndax président Macky Sall xam nañ ci kàntanu yàlla yàlla dina ko may ndam dina gagné élection yi mais nag bu ko gagné ba pare lay neex tey suukar sa mooy ñu ne gañee na Thiès sunu xarit wax na ko léegi lu musul am bu amee ñu ne l'histoire retiendra te dañoo bëgg na l'histoire retiendra ñu ne nag Thiès président Macky Sall gagné na ko pendant son mandat mu nekk une première boo xam ne ñu ne fan la jaar ba nekk. ñu ne par le biais de Charles Émile Ciss le directeur de la SOD le président du mouvement solidarité defar sa gox gan yi bisimila ma bisimila la seen biir kër mun naa ne du ne guleet yàgg ne yàggul kon boo bisimila leen ñëw ngeen fi ngeen war a ñëw ñun amuñu kenn ku dul yéen kon dañ leen dalal ci kaw bisimilahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabi alamin lépp loo xam ne ñu ngi ko fiy sumb di ci waxtaan te wetante ay xalaat yàlla mun na lépp yàlla gis na lépp yàlla na yàlla mot lépp yàlla nangu ni lépp loolu la ñuy ñaan yàlla suñu borom yàlla na yàlla nangu ñaan waaw madame Loum kontaan doom baay jóobu jubba parce que mun naa na gor wax ja parce que bi ngeen fi jógee yàgg na yàggul mais yàqoo ki dara toujours ñu ngi jokkoo téléphone wane na carrément rek lu ma séq yéen tey laa ko gën a loolu dafa nekk loo xam lu ñu neex la gis nga tey ñu fi toog kiro bi nga ñëwee gis ngeen leen te itam lañ ko gën a dëgëral am na ñoo xam ne sax dañoo yàkkamti sax war dem liggéey mais ba léegi dañoo toog pour kontaan li nga kontaan bi nga xam ne da ngeen war a ñëw waxtaan ak ñun loolu dafa nekk loo xam lu ñu neex la kon boog bisim na leen kontaan nañu torop waa bisim na leen. mi. ñoo ngi leen di nuyu ku nekk ak sa tur ak sa sant man maay madame Kanouté Ndeye Thiané Diagne surveillante au lycée technique de Thiès ñoo ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di kontaan seen teewaay fii ñun nag ñooy waa nopp sa jëkkër bu ngent présidente baa ngi nii matijoo man maay trésorière bi man maay trésorière bi léegi daal waxtaan bi lañ bëggoon mu commencé ci comme niñ ko waxee woon ba passé rek am na lu ñu diggante woon ak madam lum mu joxoon ñu rendez bu ni ñu heure bu ngeen jàppee bis ngeen ñëw mu ñëw léegi nag tey jii dañoo bëgg nag gën a firndeel suñu relation ak moom ax jàppale bi ñu ko bëgg a jàppale tamit ci bépp fànn buy avanceel jigéen pour le moment mayam foofu ba débat bi gën a merci. suñu bopp ci famille bi boole nañ suñu bopp ci koñ bi parce que man Umar Seck man mii di wax ak yéen. Ismaïla Seck mii ngeen jàkkaar lool mbokk la ci man alors Isma mi waaw et puis tamit euh, lu baax lu ne ku ko gis tamit xam ne lii lu baax la da nga cay jàpp ñun bi ñu fi ñëwee boobaak lay gis nañ ni ngeen doone benn jeunes yi mag ñi ñëpp ñi ngi doon benn organisation bi rafet na vraiment ñun liñ fi gis dafa dal suñu xel ñu ngi dem feneen di dem ci ñeneen di wax ak ñeneen mais tamit fu ne ak lañ fay gis ak nañ koy téye ak nañuy doxale ak ñoom boo gisee tey ñu ñëw fi effectivement dañ ñu wax ni depuis bi ñu fi jógee def fi korok événement bi ñu fi def directeur ñëw fi ànd ak vice présidente ànd ak délégation maam ñoom Mati Senghor rek ñëpp nekk fi ñu assister cérémonie bu vraiment bu intéressante bu ñu kin convaincre tamit pour ne pas dire séduire nañu trop alors ñu am yaakaar fii bon liggéey bi nag xam ngeen ko mbirum politique la waaw organisation bu fi amee defe naa objectif bi leer defe naa liggéey bi du poser problème te gis nañ fi jeunes yu discipliné yu engagé yu am inspiration voilà te directeur wax dëgg yàlla <coughs> vous m'excusez gis na loolu ci ñoom te am na yaakaar ci ñoom am na yaakaar tamit ci yéen ñi nga xam ni yeneen seen seen ay waajur yu jigéen et puis am taxawaay bu rafet tamit seen wet léegi tey dañu waroon a samp ñaari cellule muy cellule famille ak cellule jeunes yi defe naa ni loolu loolu lu mat a rafetlu la parce que c'est des cellules allant dans l'ordre de cinquante et quelques yéen je pense vous en êtes à cinquante neuf membres alors jeunes yi tamit xam naa ni du ñu leen limagul man li ma bëgg ñoom ñooy ñu ñu relever défi bi et que le nombre de cellules bi gën a mag ci Thiès Nord ñu installé ko fii diggante Ngent Ngent extension Ngent Sérère loolu mën na la parce que tamit nit ki fa mu yaakaar ne am na fa doole am na fa ay potentialité yu wóor foofu lay ji am njéem ñun fii lañ bëgg affaire yi soqee ko fi law jëm ci feneen parce que liñ fi gis ci organisation ak engagement doy nañu léegi cellules nag tey buñ ko waree installé vice présidente bi ñëw madame Loum moo jile jiite délégation bi ànd ak le responsable femme Ndey Saw Anta Ndiaye mi ngi nii toog responsable femme de la commune nord de Thiès ñoo ànd aussi ak Penda Ba suñu jigéen moom mooy responsable mobilisation et organisation au niveau de la zone nord ànd aussi ak le coordinateur adjoint Babacar Bertu Diop mi ngi ni ginnaaw ñu ànd ak Iba Gaye moom mi ngi dëkk taax kaw doon responsable mobilisation ak kaw sa kii taaxi kaw ànd aussi ak Awa Gueye mu doon responsable aussi à ci biir mouvement bi nekk ci zone nord bi bërki Dembo Ndiaye ñu montel ko sërilam ñu ànd aussi ak Sali Ndoye moom tamit doon responsable ñu monteel ko moom tamit déjà bii ci guddi alors par voilà une celle de plus de cinquante membres cent voilà ñu ànd aussi ak Babacar yéen ñëpp xam ngeen ko xaritu xale yi la waaw moom moom ci koñ bi la dëkk moom lu ñuy yëngal lu ne day ñëw taxaw parce que moom moo yore mobilisation jeunes yi mooy patron jeunes yi patron jeune fii yi aussi <laughs> waaw ñu ànd aussi ak Samba Diouf moom mooy secrétaire général bi te lépp lu ñu fi wax incha allahu rabbi dina ko note compte bi dina fidèle rapport bi dina synthétique directeur dina ci jot lépp lu ñu fi def dina xam ni lii lañ fi def ak yéen donc ça sera des cellules officiellement kii seront installées ici bon installation bi rek am na solo mais tamit waru ca yem lépp lu ñuy installé c'est pour mu déployer wu la. déployé wu dans Ngent extension partout am ngeen fi nag ay opportunités réelles yu ngeen war a saisir muy yaa notre euh, grand frère monsieur Pierre Ndione nekk fi am na fi aussi yeneen famille yoo nga xamante ni daanaka sore ak directeur ñoom ñëpp ñu am un engagement fraternel bëgg ànd ci affaire bi jàpp ci affaire bi jeunes yi tamit wax naa tout à l'heure seen engagement donc euh, cellules yi dañ koy installer tey financement yi ak formation yi parce que korog bi ñu fi ñëwee nga jël kar kii kàddu ñu lay féliciter aussi présidente Mati Diop alors wax nga problème mu formation alors mu doon suñu priorité ci femmes yi parce que femmes yu bari dañ leen di financer mais njalbeen dañu jàpp ni dañu leen waroon a former d'abord parce que bala ngay jox nit ki xaalis mu koy saytu da koy former mu xam li muy def naka la koy defee alors mu mën ko jural njëriñ donc formation yi na seen xel dal suñu présidente des femmes zone nord ndey Anta bi ñu àndal ni moom formatrice la defe naa ne bu ngeen pare spécifier yéen seen filière de formation ci yéen la des dégg naa taaxi kaw ak ngent daanaka kër maam alaajee dox ci diggante bi soriwul moom mën na ñëw fu ngeen ko bëggee mu defale leen ko fa nu ngeen ko bëggee mu doxale leen ko noonu léegi nag dinañ jox kàddu Penda Ba moom mu wax wax ak yéen en tant que ay jigéen wax leen aussi opportunité yi nga xamante ni ni moom moo am ci mouvement bi ak défi yi ngeen war a ànd ak képp kuy jigéen ci mouvement bi relever ko alors Iba Gueye tamit dans l'organisation parce que fii dañoo jàpp ni cellule lay doon yoo xamante ni ñuy war a mën a jàppale mouvement bi ci mobilisation la alors moom tamit dina waxtaan ak yéen ci moom lim jot a am comme expérience ci mobilisation yi ñu war a def yi ñu def ci euh, mouvement bi depuis le début jusqu'à ka maintenant alors euh, la vice-présidente moo kii la présidente des femmes aussi dina jël kàddu moom mooy formatrice bi dina leen jox ay quelques conseils dina leen jox ay quelques orientations yoo nga xamante ni mbir mi dina gën a leer ci yéen bu ñu paree tamit staff bi ñu àndal ak délégation bi ñu àndal selon ni wax bi tëddee ak ku ci nekk préoccupation yi nga teg ñu xool ku ci am loo ci renforcer ak ay orientation yoo ciy joxe wala ay idées yooyu joxe ñu joxe ko defe na Madiagne tamit faw mu wax. ndax yéen ku leen xool xam ni yéen jigéen ñu takku ngeen ñëwoon naa fi ñëwaat naa fi tey mais li ma gis maa ngi wër de mais li ma gis fii gisaguma ko fenn. ma leen naan yéen ma dama leen di beral loxo ma naan leen nag dama bëgg nag ngeen jàppale suñu président Charles Émile Abdou Ciss li tax ma ne leen ngeen jàppale ko mooy day xale boo xam day xale bu loxoom set te nee naan xale bu loxoom setee mu mën a bokk ak ay mag te toujours dama koy dégg ci discours am mu naan man Sénégal moom a ñor man Thiès moom a ñor man zone nord moom a ñor rawatina nag yéen waa Ngent extension ma leen di ñaax nag ngeen jëli seeni carte ndax xam nga wax nii rek neex na ñu ñëw toog nii wax ak yéen ngeen delloo ñu ay kàddu neex na mais nag dañoo bëgg ngeen takku jàppale seen doom te xam ni doomu Cees la ndax toujours dama naan politique bi ñun waa zone nord ñii ñun ñoo moom politique bi mais booy xool ñun zone nord amaguñu dara ci politique ndax amuñu lider bu ñu mën a taxawal di ñu kaasal te Charles Émile Abdou Ciss yàlla def na loxoom set na ba dina mën a dem ca kaw di ñu kaasal di ñu indil fii ñun suñu gox-goxaat yi ndax li nga xamante ni mooy suñuy métit mu mën a saafaraw ma leen naan nag li ma bëgg mooy ngeen jëli seeni carte daas fanaanal ndax nag kart moo koy mooy moo koy fal ay waxi kase du ko fal de xam nga mu ñëw jox leen ay teraangaam ngeen récupérer ko ni ko dinañ la voteel loolu taxul ñuy wax xam nga bu boobaa naxu leen ko mais seen bopp ngeen di nax kon nag dama bëgg ngeen gën a takku gën a jàpp te xam ni doomu Cees la ndax ki nga xamante ni day am lu tuuti di ko bokk ak doomu aadama yi kooku bu amee lu bari bokk kook ñépp manaan nag na ngeen jëli seeni carte yéen xam naa ni femmes yu dynamique ngeen te xam naa ni yéen a ngi ci yoon wi may ñaax tamit jeunesse bi ndax jeunesse bi tamit ñoom it kenn damul ñu des ndax tam dañ naan gune mooy yaakaaru ëllëg te ëllëg yéenay relever défi bi kon tamit yéen tam am ngeen rôle bu am importance ci biir mouvement bi ma leen di ñaax yéen tamit ni ngeen jëli seeni carte bu le 24 février ngeen jox ko le président Charles Imel Abdou Ciss mu teg ko ci président euh, Macky Sall ñun ñëpp ñu bokk am ndam te nag ñuy xàccandoo di dóorandoo te xam ne mbooloo mooy doole wasalaam. kaay bi ni ak weexam xam naa noonu la xol yi selle te ñun suñu xel dal na euh, suñu vice présidente bii di madame Loum lu mu leen wax ñun ñi ñoo ko mën a firndee ndax tungu ne du teew ñuy nataal démb la ñëw monteel ñu suñu cellule ci guddi mais Charles mii incha allah boo leen ko jàppalee seen bopp ngeen jàppale parce que fi mu dëkk ñun de macha allah jooyuñu dara li mu am lu ndaw lii mi ngi ñu ciy defal lépp li mu man te incha allah buñ ko falee le 24 de defe naa bët dootul xonqati incha allah kon de man li ma leen di ñaan man de sama waa mbootaay ñu ngi gundaandaat ndax Charlo ci lu tuut li mu am kon bu amee lu bari le 24 macha allah kon ñun ñëpp dinañ kontaan jigéen ñi li ñu bëgg ngeen jàpp jëli carte yi le jour ñu siggi gis nga mbooloo mi bëgg nañ daal le 24 ñëpp siggi ku jàkkaarloog sa moloom man laa xool ree loolu la ñu bëgg incha allah ndax bëgguñu mukk xool sa morom di sëgg ndax ñun jigéen ku ne dina ñëw ni la dama laa soxla ku ne ñëw jox la euh, astuut mais Charles mii dañoo bëgg ñu jël suñu lépp am ngor jàppale ko parce que Macky Sall su toogaatee de defe naa réew mi ca kaw ca kanam rek incha allah kon nañ jàppale suñu doom Charlo macha allah kon kàddu yi mi ngi noonu. <laughs> oui comme ni ko kilifa yi jiite waxe euh, Omar maa ngi lay nuyu di la ziar sekkeen bi <laughs> yow moom mooy loolu. di nuyu aussi suñu kilifa suma xaritu bopp muy présidente madame Loum ak sama yaay Ndey Saw ak délégation bi ñu àndal lépp ku lim juum comme sànq Omar moom lim na rek ñun moom benn bopp lañ te benn kàddu aussi tam la ñuy doxee comme ni mu ko waxee man ma yore mobilisation organisation aussi tam ak man ak euh, soxna si génn léegi muy soxna Penda Euh, ñu nekk ci fas yéene ci liggéey euh, liggéey bu sell bu rafet comme ni ñu ko président sase ah ñu am ci yaakaar ci fépp fu ñu dem gisee ko tamit comme ni ko Penda waxee ñu ñëw ci yéen gis ci yéen organisation bu rafet gis ci yéen mobilisation bu rafet kon loolu dinañu permettre ñun li nga xamante ni moom mooy suñu sas incha allahu rabi dañu ci yombalal lu bari ñu leen ciy félicité di leen ci ñaanal yàlla di dalal seen xel tamit ci beneen pàcc bi muy côté financement comme ni ko jigéen ñi waxe man mi euh, bi bin yegsee ci man taaxi kaw dama leen a boole ak suma yaay yi nekk foofu di def comme nii yéen ngeen di def yàlla dogal na madam Loum ñëw na fa jëflante ak ñoom ndax ñoom avec la ñu yoroon doon def di dindi bi mu dikkee it euh, indil na leen ay produits ñuy jaay ba le le cinq bi passé ku ci nekk la nga jëloon ñëw nga versé ko ba fi mu toll ñi ngi waxtaan ci ban loo la ñu war a jëndaat pour continuer seen financement kon côté boobu tamit maa ngi ciy dalal seen xel di leen wax ni Sarl bi mu dikkee wax na ma ni du ma wax lu ma dul def lépp lu ma wax fas yéene naa koo def ndax du ma dige lu ma mënul lépp lu may wax fekk na mu tege a Euh, ma teg ko à côté kon côté boobu aussi maa ngi ciy dalal seen xel euh, di wax nag ci côté jeunesse bi comme man ñoom laa bokkal génération di wax gars yi aussi tam vraiment seen taxawaay rafet na li ñu gis si yéen aussi doy nañu comme ni ko ñëpp waxee euh, di leen ñaax que ni ñu ngi waaj a dugg ci campagne yi te bëgg naa ñu fësal si suñ bopp trop. Euh, dinaa ci waxtaan ak Babacar responsable des jeunes ñu bokk toog ak kilifa yi waxtaan ci ak ñoom parce que dama bëgg campagne ren yi président sentir ci boppam que ni Thiès taxaw na taxawaay boo xamante ni moom musu koo gis waaw parce que ñun bi mu ñu seetee ñun jeunesse taxaw doon ko wax ni ko ñun ñoo nekkoon ci Idrissa Seck mu jaral ñu ñuy xeex guddi ak bëccëg di taali pono di jàkkaarloog police yi di dóoranteeg ñoom di xaañanteeg ñoom ku nekk xam na kor euh, jour bi ñuy téye Idrissa Seck métti woon na trop Thiès dem na ba dañuy tëb ci kër yi góor gu ñu fa fekk dañuy dóor ba mu bëgg dee teewul ñu reculer benn yoon mais li waral ñu ba fa ñëw jël suñu yoonu bopp moom mooy dañ cee yàgg xeex yàgg cee reyante te gisuñu ci suñu bopp benn yoon ku ne xam na ni euh, Thiès élection gañe naa Thiès président bu fi toog bu ne bëgg nga loolu bokk ci sa carrière kon Thiès bu tollee foofu ba pare ñun gisuñu benn yoon luñ ci jariñoo wala luñ si bénéficié woo jot na ñu xoolaat suñu bopp loolu moom moo waral ñu waññeeku yàlla wommatal ñi doom ju mel ni sarlu Emile ñu am ci moom yaakaar mu ñëw ñu déglu ko mu wax bilan am que ni dafa bëgg jàppale jeunesse Thiès dafa bëgg jàppale cees dafa bëgg lëndëm gi cees lëndëmoon mu taal ko ba cees ni fàng ba fu waay tool di ko seen ci loolu la woo kon loolu kuñ ci woo ñun dañ ko koy gën a bëgg te yaakaar naa ni ci anam yooyu la ñuy àndee ak moom dañ koy wan ni ñoo la ko gën a bëgg bëgg naa incha allahu yi ñu jàpp journée boo xamante ni dinañ def euh, dinañ def euh, comment dirais dinañ def euh, caravane boo xamante ni fépp fu ñu am selil dina ñëw teew fa responsable jeune bi jël kàddoom wax ak waa koñ bi responsable euh, femme yi aussi jël kàddu wax ak waa femme ñaax leen que ni nañ teel a jëli seen carte comme ni ko sama yaay Ndey Saw di waxee teel ko préparé ci guddi gi ba bu fajaree ñu mën a teel a dem euh, mën a jël carte yi dugal ko ci ci ci ci fan ko war a dugal falaat président de la république mu xam ne ci loxo sarle Ciss la jaare comme ni mu amee ci moom yaakaar loolu daal laa ci amoon lu may mootali di leen sant. képp ku fi teew maa ngi lay nuyu sa tour ak sa sant d'abord di nuyu sama yaay yi fi teew di nuyu présidente di nuyu délégation bu présidente àndal bon li may wax xam naa du du du gudd parce que tey suñ journée yaay yi la quoi dañ leen di accompagner rek bon dafa am lu ndaw loo xam ne dama ko bëgg a leeral ñun dañ dañu woon duñu politique dès le début ba ci yàgg ñun ni dañuy politique. bu ñuy politique tamit ñu di charlu ñun politique bu ñuy politique mooy dona dona ak ñi defal ñu defal la loolu lañu waxoon bon charlu nag daf ñu jam lu tax charlu daf ñu jam charlu dafa ñëw waxtaan ak ñun bu mu waxee ñun ci saa si le même jour mu ne dinaa leen may cinquante bourses seen yaay yi ngeen yaakaar seen yaay yi nga xam ne ñoo leen boot dinaa fexe bañ am formation lu ñu bëgg ma financer leen ci lool ma leen di wax yéen ñun ñu ngi ni toog les jeunes ñun ñoo ànd dugg nañ ci kër yëpp wax mais dañ leen wax ni Sarr lu mu ñu waxoon ci affaire bourse yi def na ko parce que cinquante listes yi mu ñu waxoon mi ngi nii ñu yor suñu loxo. te dafa am benn wax bu am solo bu ma waxoon fii laa leen waxoon ni leen gor boo ko toroxalee di nga ko tuxal nga tere ko tëral ko moom nag teral nañu. politique nag dafa garaaw dafa doy waar lu tax dafa doy waar mooy nit ñi léegi dañuy faral di wax benn moo booxante ni moo bu moo bu moo boo xamante ni moo baaxul ci sunu sunu sunu sunu sunu sunu sunu askan bi mooy lan mooy politiciens yi bu ñu ñëwee lu ñu la indil jëlal bu ñu demee nga def lu neex loolu baaxul. benn man nag am naa yaakaar ci sunu yaay am na yaakaar bu baax ci sunu yaay parce que ñun discours bu ñu am ak Charles dañ ne carrément ñun sunu yaay lu ñu bëgg ñoŋ ca lu ñu bëggul nekkuñ ci fii nag au zone nord dafa am benn benn défi boo xam ne dañ ko relever défi bi mooy lan mooy zone nord fii 48000 voix lay doon ci bureau de vote yi. Macky Sall 8000 voix la ci amoon léegi nag ñun kon dañ ñoo teg lu rëy liggéey bu am solo suñu loxo te bëgg naa liggéey boobu ñun waa Ngent extension ñu jël ci paie bëgg naa bu jour ba xam nga tamit wax dafa war a leer Macky Sall lay jàppale yéen pare na pour ñëw jàppale leen bu jour ba baax ngir yàlla nañ am ngoorug ñeneen ñi pare pour jàppale ko parce que loolu bu ñu ko defee. bu buñ ko defee vraiment kenn du ñu jam ëllëg parce que ñun tamit duñ ko nëbbu ñun ku ñu jam ñu jam la bu Charles bu ñoom mouvement bi bu ñu taxawoon wax loo xamante ne naka su dul noonu su jëm ngeen extension ñun dañuy taxaw defante ko bu jour waa ngala ngir yàlla rek yéen lañuy ñaan yéen yaay yi bu la ñu rusloo ci loolu waxuma la doom yi de mais fexe leen ba papa yi dem voté ji voté président Macky Sall ku la jox ndékki nag bu la diggee añ dig la reer na ko gëm jox nañu bourse ñoom ñëw nañ pour waxtaan a yéen kon boog tafa dal dalal nañ leen bu wér ñu ngi kontaan ci ci délégation bi ngeen def vraiment ñëw fii ci Ngent extension pour monter ci ay cellules ñu ngi leen di remercier ci loolu di remercier tamit jeunes yi nga xamante ni moom laa àndal. Euh, liste yi ñun am nañ liste plus de 300 membres mi ngi ci liste jox naa ko li jot a ñëw ci liste yi jox naa ko madame Loum xam naa moom dina dina xam li muy def après de toute façon yeneen liste yi bu ñëwee incha allah dinañ ko rendre. donc maa ngi leen di remercier yéen ñëpp ah, di leen wax ñu jàpp ca kaw ca kanam incha allah.